weer wi bu ñu ko séentoo nag ba waxtu wi nga xamante ne ci lañ war a noddu gee jot danañ maase jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha bu ñu jokkoo ba noppi nag ndigal dana bàyyi ko ci kër Cheikh Mahamadoul Mountakha ñëw ci Serigne Abdou Diop waxtu wi jot na am na yoo xam ne jëlee ko ci kër Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ginnaaw bu ñu jokkoo ak région yi damay bàyyi ak Serigne Abdou Diop imam mu leeral leen région yi nga xam ne jokkoo nañ ak ñoom ak ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha bi ñu defee loolu ba àggal nag danoo toog ci sowu jumaa ji di seen toog di taataan xibaar yi bi ñu taatinee ba waxtu wi nag yàlla dogal na xibaar yu bari jóge nañu ci régions yu bëree bari wane ne weer yu feeñ na ba yàlla dogal na xibaar bi nu mujj a jóg jël jël sax ci fa sëñ ba la jóge fa sëñ Muntaxa léegi dina ko yëgal waaye boobay da ko dañ ko koo wax mu ne moom du def la wax yëg yëgal ne ko nu yooyu xibaar ak si na ci noonu mu ne kon mën nañoo yëgle ne weer yu feeñ na kon ñu xam ne weer yu feeñ na suba mooy bisu korite suba ci altine ji mooy bisu korite weer yàlla na ci yàlla may dimbal ak xéewal ak jàmm ban ban fekk ko ñun ñëpp ëllëg dara déwén ci dara ji Sëriñ Tuubaa ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet dara du la ci réew mi